ak yow laa faral lu ngeen dund laa Mouhamed yow lay wax ana ay sa ana Mouhamed Mouhamed kaay Mouhamed kaay am na nga bu ngeen kaay léegi xam nga ma bëgg ngeen wax ma ngeen bëgg dama bëgg eh, ngeen ma dañu bëgg nga waaye wala dañu bëgg nga nga sant wala dañu ma xam ne ngeen bëgg moo leen man ngeen a teg damaa bëgg xoolal ngeen jàpp ko teg teg teg teg teg mu ngi dégg ma dara non xoolal yëmbal bi ah ah ah mu jóg xoolal yëmbal bi naa ñëw teg pour naa ne teg teg aywa. maman Fatou toog leen toog leen kenn sukk. ay baax. Bara Bara. waay Bara Koungheul. Bara toogal. Basi wut rek noonu ngay école. Basi waay Basi Koungheul. Basi Basi Koungheul. Basi waay Basi Koungheul loxo. Basi waay Basi Koungheul. Basi waay Basi Koungheul. Basi Basi Basi Basi Basi Basi Basi Basi Basi Basi connaissez l'ambiance, l'ambiance un peu, nous en avons waaw del xool ma. ñaar loxo laal taalal. mën na bii après mën na sew. Thank you. gerte gëm de lu samay wax nag waxi mag ñi laa leen di nekk xale yi dafa am benn dëkk dëkk bi dafa am benn béy bu sofa sofa sofa béy bi daa ndaw ba ma fi sopp. après naa leen ko laaj ci yoon bi dañ leen wax. ba noppi dëgër bopp béy bi lu ko waay tere rek lu bañ day dox nag ndolloo xam ngeen ndolloo. waaw ah. kon ay une heure quatorze heures day dox. waa dëkk bi ne ko bay mbembe bàyyi waxtu bi ngay dox bu ñu laa yóbbu ma heure bu ma neexee laay dem fu ma neex laay dem ko baax na xale yi benn bis rek bay bi dem ci àll bi doon di daw di cóot di cóot fu ne mu dugg fa ci gannaaw garab bi rek xam nga lu mu gis foofu benn bukki bu rëy bukki bi bëri yaa ngi xonq ñoom ñaar ñu bëy bi jaaxle parce que mun sa daw bëy mu ngi bëgg daw mënul yuuxu ba mu bàyyi ko ñoom ñaar ñu xoolal ko dama baal ma ñu bu waaw man nga xam heure bii damay lekk lii naan ci ndox mi dem tëdd nelaw bëy bi ne ko ne lu baax te maa baal ma ko baalu ñoom ñaar ñoom ñaar ba yàgg bukki bi ne ko boy ñetti baat dëgg laa bëgg nga wax ko soo ko ko waxee rek ma baal ñetti dëgg boy bi ne ko dëgg mooy yow moom ah yaa ngi xalaat man xalaat moom wax ma dëgg ñetti dëgg boy bi dem gauche dem droite kenn bu ko léegi yow su la leeroon ni ma leer man su ma ñëwee ci àll bi danaa dajeeg yow xam nga yow bu kii xool fi ak kuy wax waaw loolu moom dëgg la moom loolu moom bu la leer na boo ñuy gis ko doo ñëw ak ban béy bi di fa bopp day dem xëy na ba liggéey ko xool temps bi toog ñu ñaar di waxtaan yow xam nga ne boo xiiful lekk la mu yegg bu kii bi dee nag waaw waaw loolu aussi dëgg la moom boo xiiful laaj naa ko lekk ak ban mun waa léegi boo ma léegi woon na ma demal ñibbi ma daw leen bu mu suuf dee léegi nit ñi man li ma ko baax si bukki bu bàyyi kenn du ma gëm ci àll bi nag waaw loolu wax su dëgg la ñett yooyu moom ñett yi wax dëgg dëgg dëgg wax dëgg léegi nag dama la baal bi waaye que ça soit la première ak dernière ngay dox yow kese wala waa dëkk bi dee dërëm bi dëgg bopp xam nga man ci bukki nga daw boo dawal ci gaynde dugal ko ak daw bukki bi bëy bi daw seen dëkk cër cër cër ku tase ñu bukki laa doon waxtaanal benn bu dëgg waaye ñëpp rek mu dem tëdd fi mu daan tëdd ba heure bi mu daan daan mu tëdd rek yaay na waaw bañ dem daa ma dama àll ba mu ne ko dem wàll ah da ngaa doxul mu ne ko doxul lu tax doxul mu ne ko damay xaar ñeneen ñi bëy ñëw ñu àndandoo man doomu dootuma dem àll yaa ma ko tase ñu ma ko bukki waaye nag maa wax ko ñetti baat ak dama ne ko su ma ñëwoon caal nga xam dama daje jaww dama ñëw su ma leeral ni su ma ngaa xiif laaj na bu yàgg la wax sax soo ma bàyyi woon ma ñibbee kenn du ko gëm ñett yi dëgg laa ko wax kon xale yi mm. di leen sax ko dëgg lu mu métti métti di leen wax dëgg kenn du leen dóor wax leen dëgg bu fekkee da ngaa dem boutique ba boutique ba nga demoon su fekkoon da ngaa dem sa kër xale sa kër xale nga demoon xale du fa day leen fii lay jël dafa tàmbali ba ana Khady Fall ana Mousse Fall ana Seyda Mané ana Oustaz Ndongo ana Seyda Fatima ana inspecteur ana inspecteur ana Saliwi Ana les parents. Ana les Ana Madi Sembel. Ana Saliwo. Ana Papsari. Ana un eh, eh, eh. Ana Mohamed. Ana un ana indu ana pamatar ana oo ana Zainaba ana Khadija ana oo ana Salihu ana Mohamed ana Miriamo ana Ousmane ana Soxna Jaara ana ñi ci des su ngeen amee question yoo leen di poser ngeen poser question ñu répondre leen li ngeen fi gis moom moo fi am te dañ leen gis incha allah fii 1983 la ko état du Sénégal créé donc gouvernement Sénégal moom moom fii yéen ci ngeen bokk même su ngeen dëkkee Louga ñun ak yéen ñoo ci yem ñun dañuy fi teg rek ah pour ñu di leen saytul li fi nekk 1983 lañ ko créé le 30 mai yaatuwaayam toll na ci 720 hectares. dégg nga 720 hectares mu am dex bu nekk ci biir boo xam presque moo jël 250 hectares yi solo euh, création réserve bi nag mooy bi ci njëkk mooy dex bi fi nekk ñu aar ko parce que li ñuy wax protection des zones humides lu tax mu am njëriñ mooy day am lu ñuy wax oiseau migrateur ci ngeen déggee oiseau migrateur mooy picc yi jóge Europe bi ñëw fii bu demee ba sedd bi jeex foofu ñu jóge fii delluwaat foofu li tax ñuy ñëw fii il trouve les bonnes conditions qu'est-ce que c'est que les bonnes mooy barab bi dal na am na dal dara du leen déranger kooku benn la ñaareel bi il trouve leur nourriture seen lekk am na fi picc mi ngi am loolu ah, dafa wax ni picc moomoom boppam garab bu ko neex lay dal ah donc réew yëpp dañoo aar dañoo bokkandoo signé convention bu ñuy wax convention de Ramsar pour aar picc yi aar aussi dex kooku benn la ñaareel bi mooy xeeti garab yi fi amoon ci cosaan ci cosaan jamono ñoom maam te amatu fi ñu fexe nu ñu aaree àll bi ba garab yooyu dellu si waat mm-hmm. ñetteel bi mooy xeeti rab yi ngeen gis wolof mooy wax rab animaux mm-hmm. animaux yi ngeen gis ni te mu amoon fi ci jamono maam te amatu fi ñu fexe nu ñu leen fi delloo si waat mm-hmm. bii ngeen gis nii mooy oryx oryx algazette moom 1850 la gëj am Sénégal ci lañ constaté ni jeex na tàkk ci suñu àll yi fi 1999 le 23 février 99 lañ fi ñëw jóge Israël bi ñëw huit la ñu woon cinq femelles trois mâles maintenant ñu ngi ci 130 yu nga xam ne ñu ngi fi sans li nga xam ne dee na parce que bu ñu at dañuy atteindre seen niveau de vie ñoom à de 25 à 30 ans bu ko amee ñu ngi commencé di màgg à 30 ans bàyyi ma la bu nga xam ne boo ko séenee comme nag naga ko ëpp mais comme nag mën na dem ba 250 kilos dégg amatul ci àdduna bi fenn foo koy gis ci àll moo tax ñu bëgg ko aar ba ñu bëriwaat suñu bëree fi dañ leen di jël yóbbu Ferlo 2003 li ñu commencé def ay transfert dans le Ferlo 9 Oryx lañ leen joxoon Ferlo ñu ci 500 léegi vous avez vu voilà donc def nañ aussi transfert ci yeneen pays comme Mauritanie par exemple am na gazelle bu ñuy wax gazelle Dorcas moo nekk nii mooy tableau yooyu la ngeen gis toujours gazelle Dorcas ñoo gën a ndaw ñoom Espagne lañ jóge mais espagnol yi fii lañ leen doon jàppe suñu réew yi di leen yóbbu mm-hmm. léegi nag ñun dem ne bi amatul ñu dem foofu di ko fa jël mm-hmm. waaw mais fii mooy seen cosaan ñoom aussi lii ñuy wax gazelle d'Amamor moom tamit am na fi ñoom tam ba tey españ lañ jóge merci vous mm-hmm. am na aussi lu ñuy wax tortue terrestre mooy mbonaat yi mbonaatu suuf ñoom ñoo nekk ne mbonaat mën na dund 300 ans ñetti téeméeri at mbonaat dafay dund waaw bi mag fii ci parc bi am na quatre-vingt-cinq ans mais quatre-vingt-cinq xale la bu dee mbonaan parce que luy dund trois cent ans bu amee quatre-vingt-cinq xale la donc ñoom daañu leen gis tamit mais nawet la ñuy gën a bëri quand même lañ leen di gën a gis booy romb da leen di gis ñoom moom seen bopp bi ñuy créer parc bi fi lañ leen fekk donc dañ bokk ci aar bi mais nag dañoo libre ils font partie de la profession mais ils sont libres donc souvent da leen di gis ñuy dugg ak génn mën nañu am chance leen comme aussi mën nañu leen bañ a gis moo tax sànq bi ñu kii man leen denc leen bagage parce que golo yi mën nañ ñëw hmm. à notre insu ñu ngi kii seen bagage yi quoi n'est-ce pas booy génn chaque fois da ngay donc c'est ça la réserve pour bañ leen a retenir monopoliser du trop j'espère que añ ngeen ba suur yéen ñëpp daa ngeen gis lu ngeen war a allah meññeef ak lépp euh, sax yaay nga da ko war jox ak et marigo ah ci lépp luy dex ah ak taataa ak ay déeg ak ñoom seen bul tilimal bu fa sànni mbalit bu fa sànni mbuus loolu tax ko jóg au feu tu lépp luy daay nañ ko moytu lu ngeen dégg daay àll bu tàkk loolu baaxul beauté et propreté de ton pays tu préserveras sa réew taar taar ba fa nekk na pour dëkk bi rafet yow aussi da nga ci war participer ah mu wax la ni la silence de la nature ci tout tout le trouble la am moom laa lay wax léegi mm. la nature a besoin du silence moo tax tubaab bi liggéey Europe ba sonn dañuy dagg paas ñëw fii ak seen famille dem ci àll yi di noppal di visiter dégg pour am benn quiétude bu nga xam ne amuñu ko fële ay relais ngeen da ngeen fu ngeen fi jógee li ngeen fi jàng waxtaan leen ko ak seen i mbokk waxtaan leen ko ak seen xarit waxtaan leen ko ak seen i gis naa foofu mbonaat ndeke am na njëriñ et cetera am na njëriñ ah vous êtes les en général guddi lay génn comme ñaata at ñetti téeméeri at ah donc dañuy am longévité di gaar nga njaboot mais aussi di gaar nga comme ak wér nee nañ fu mu jiitu asma du fa am maintenant une fois que y a un asthmatique ça atténue les crises d'asthme dégg ngeen voilà yi cinq mois lañu am ñoom moom tant que amuñu 12 ans mënoo xàmmee yu góor yi ak yi jigéen voilà 12 ans c' est l' âge de génération 1 yi la ñoom 1 an am seen màgg gaawul mais bii am na 5 ans <coughs> gis ngeen hmm? waaw waaw. <laughs> Bi différence dañuy yëg sax am na ñoom dañuy yëg ci kaw di di di di. Foto naa la yàgg na tourné. Day tuuti. Ay dañuy dem fii man. Ay ñu dem fële. l'islam mi ngi ci biir bëri nañ mais dañu kaf euh, pax yi dafa xóot hmm. fi mu ne nii yu bëri ñu ngi ci biir mais dañuy sori ci biir ñoom ñoo koy gasal seen bopp waaw soixante quatorze ans waaw xale la ah nga ne ah. ay waay ah, ñett téeméeri at la ñuy dund ak yi jigéen soo xoolee bu góor bi très yi très yi da nga koy gis bu baax bu dee waaw bu magee ak sa pour wax boo xoolee femelle adulte yi jënu bu dee femelle adulte këll bi day ratax day liis parce que suul après waaw moo tax ñuy wax njaboot dañuy njaboot ñoom dañuy njaboot waaw boobu jigéen déggoo man la këll bi day ratax maal bi ni muy yéegee kaw di accouplé wu tout le temps te accouchement bi day jël temps moo dem mu dem day day ah demee ci ginnaaw am na yeneen yu fi nekk dañuy jaabal il faut la navette entre les deux ba pare gis ngeen fi ñuy yëgoon ni mirador boobu beneen na ngi dale ci kaw loolu yëpp ci parc bi ba ci dune de sable yële parc bi dem na foofu léegi nag tubaab bu ñëwee di visité ñoom am suñu am dañuy bëgg dox mais am suñu am dañuy jël seen oto def le grand tour dem bu ci kaw wàññi ko waat c'est ça donc dex bi jën mi ngi fi si pax mi ngi fi poti mi ngi fi jonkoom mi ngi fi waaw kroko juuj na am parce que fii ndox bi dafa xorom voilà dafa xorom xam ngeen ndox bu xorom ñu ngi koy waxee en français c'est de l'eau c'est de de l'eau salée monsieur Khalil gàcce ngalama inspecteur gàcce ngalama oustaz Songo gàcce ngalama yaa seyda gàcce ngalama yaa seyda gàcce